wajalilaayi maskani tubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat baatub diaspora dañ koy tudd waaye nañ xam ne Touba ca kanam amul frontière bëgg-bëggam yépp mooy lépp lu nit di def mu dellu siwaat fii ci dëkk bu tedd bi léeg-léeg nag groupe whatsapp yi bëri fu ci ne ñu ne coordinateur sàngama fa nekk ab liggéey moom foo ñu di ko yoonale noonu waaye li ci ëpp solo mooy ñu xam ne lépp rek benn la kon Touba ca kanam moo fi tase am na ñu fare bitim réew waaye tamit lu mu yàgg-yàgg dinañ dellusiwaat ginnaaw li ci ëpp ci suñuy ndaje eh, lu jafe lay doon at ba at lay am kon buñ nee tey ji diaspora bi ak waa zone nationale bi muy Sénégal yëpp dañoo war a daje day doon lu am solo dañoo xalaat ne waxtaanee luy tax liggéey bi jëm ca kanam day baax lool ci ndaje yu mel nii moo tax ren ñu ne dañuy ci biir ndaje mi dañ koy utal thème thème bi bu njëkk bi mooy nu ñuy def ba sécuriser saytu aar waggar euh, liñ jot am ak i processus et projection structurelle maanaam liñ jota liggéey fi mu toll nuñ koy aare ak i tamit li ci suñu kanam nuñ koy dëgmale ba tax na ci tomb bu njëkk bi ñu ngi jëm ci wàllu sécurisation des acquis maanaam fi Touba ca kanam toll ci at yi lim dox ba léegi nu ñuy def ba téye ko aar ko mooy Touba ja kanam dafa taxawal ay mécanisme am lu tolloog fukki commission ak ñeent am ci commission bu ñu wax commission des finance commission des finances boobu ci ronam am na lu tollook ñeenti commission ñeenti sous commission ñu mëntee tudd sous commission gestion des fonds sous commission achat sous commission carte et membres ak sous commission recouvrement ñeenti sous commission yëpp ci ron commission des finance dañu nekk ngir di ko dooleel ba liggéey bi bañ am benn sooxe bu ci nekk ci sous commission yooyu li jiitu sa liggéey wagaar ci la bokk fexe ba lu mel ni carte et membre tey ci misaal diaspora bi ku soxla carte wala bloc ci réew mi lay jóge Sénégal noonu muy jóge ci réew mi nag ñi yore loolu nga xam ne loolu rek mooy seen liggéey saytu carte yi ak reçu yi ñooñu dañuy bëgg mu egg ci ñoom waa diaspora bañ mën koo wecceeku mën a dugalaat xaalis bi ci Touba ca kanam waaye jafe-jafe danay faral di am ci foofu ndax ci wàllu sécurité yow dañ naan la ab GP ko war a yóbbu nga jël valeur boo xam ne ci suñuy gët ñun ay millions la te ko koy yóbbu mën naa am sax moom du jullit wala boog ay këyit lay jàpp ne moom la yor léegi loolu noonu mooy première étape bu sécuriser war nañoo xool suñu bloc yi nga xam ne moom la ñuy jumtukaay yi ñuy utiliser te mooy indi millions yi ñuy tudd nan la ñuy def ba à première vue ñu valoriser ko ba mu doon loo xam ne ku képp ku ci jëflanteeg ñu nit cër bi ñu ko jox muy pas-pas bi ñu ci am yow di nga ko ko mën a jox. loolu bokk na ci wàllu sécurisation bi lu ñu war a bàyyi xel leneen li mooy euh, carte de membre yi carte de membre yi chaque anne dañ koy dañ koy def di ko wecci ko 5000 ci Sénégal 5000 boobu sax mën naa tudd 5000 rek pour fépp. waaye carte boobu nga xam ne da nga koy wecciku sécurité bi ci war a mën a am sécurisation carte bi ba nga xam ne du doon carton buy naaw rek boo xam ne bu la neexee fu ne nga gis ko fa loolu lu ñu war a mën a def la carte bi ku ne mën na ci am accès mais war nañ koo aare noo xam ne day am identification yu wër yoo xam ne borom carte bi du yem rek ci doon carte membre Touba Ca Kanam mais dana am leneen lu koy permettre ba nga xam ne tey jii ki ko yor moom day fier sawar ci wane carte bi ba tax na nag kon loolu noonu commission bu mel ni commission discipline mi ngi ciy joué bu am solo waaye gis nañ ne euh, ñi ngi jàngale njàngale moo xam ne nii ni ko sëñ bi bëggee woon ci naaju teggin yi ñu di ci bàyyi xel ba bu suñu kàddu jógee rek ñu xam ne lii tubaa ca kanam moom mooy wax. sécurité boobu nag foo ñu wut jumtukaay yu ci gën a mën a dimbali jumtukaay yi nag weesu wut comportement wu nit ñi fexe leen a yar ndax nit moom bu téyee ojoom di wax wax dafa doy mënoo fexe fexe fexe ba di ko karkaral wala dara bu jógee rek jóg na kon loolu c'est un problème boo xam ne Touba ca kanam war na cee bàyyi xel nan la ñuy def ba sécuriser ci wàllu communication niñ ciy jëflantee loolu lu lu jar a bàyyi xel la léegi dañuy dugg ci beneen tomb bi parce que dañ koy tënk ngir mbooloo mi toogaay bi bañ a yàgg mooy Touba ca kanam décider ne man kat ginnaaw def naa ab diir doon association léegi nag naa sol beneen mbubb bu may mën a tax ba mën a def luy tax nit ñi mën a développer sur le plan économique Touba ca kanam lépp fépp fu mu egg mën nañ ne communication bokk na ci li ko fa eggal ñu ciy nuyu sëñ Fallou Ndiaye président commission communication nga xam ne organe de presse bi mu yor muy Touba Info li ci ëpp ci communication Touba ca kanam moo koy def waaye tey fii Touba ca kanam toll est-ce que jotul ci mu am ay moyens de communication bu boppam ñaata manifestation mooy am yoo xam ne Touba ca kanam daf cay egg waaye dañ koy couvriral lu tuubaa ca kanam di xaar ci mën a yore ay nitu boppam ñoo xam ne ay journaliste lañ de métier ñoo xam ne ni Touba ca kanam kese kese kese moo leen di tax a jóg loolu bokk na ci li nga xam ne mooy anticipation yi ñuy wax yi ñuy wax ne ci thème bi la bokk Touba ca kanam kañ lay am rajo bu mu moomal boppam ndax war na ko am ndax mën na ko am lu ko am am am gi lan la koy yokk ñàkk koo am gi lu koy wàññi donc buñ ci xalaatee li ñuy fay ci média yeeg yooyu bëri na mais buñ amoon suñu rajo bopp dox ab diir am suñu télé bopp est-ce que loolu Touba ca kanam mënu ko donc euh, loolu yëpp lu ñu war a anticiper la fii at yi di ñëw xalaat ci te jéem a dox nag jëm ci. Euh, man nag mu am ci yoo xam ne daf maa ñor lool euh, lu ci mel ne nu ñuy def ba ñoŋal walla ba sécuriser li nga xam ne moo jëm ci koom mi war a jóge ci diaspora bi. jëm si ci fii ci Touba ca kanam euh, ñun ñëpp xam nañ ne réewi tubaab yu mag yi dañoo fonk li ñuy wax taxe dañ ko fonk loolu impo moo xam Europe la moo xam états uni la fu ci mën a doon bépp banque bu mu doon nga fay dugal xaalis war ko faa jële transféré ko muy dem day xaw a metti lool ca ña nga xam ne ñoom ñooy récupérer xaalis boobu parce que réew ma nga xam ne moo fa nekk ñoom dañuy xool li nga xam ne mooy xaalis bay dugg ci compte yooyu de telle sorte que dañuy dañ koy dañ koy saytu te mën dañoo teg boroom compte ba ay ay daan daan yu metti kon nan lañu war a mën a def ba xaalis boobu mën a ñëw te du ñu am yenn daan yi mais ñu fàttaliku ne waxuñu woon bi ñuy sos Touba ci kanam waxuñu woon ne réew nangami réew la ñu soxla réew mu ne joxe nàngam ngir ñu am ñaari milliards déedéet on n'a jamais dit cela Serigne mi nga xam ne moom la xalaat bi génn ci moom daf ne nañ fexe ba am ñaari million ngi ñaari million ngi yooyu ñu war a am kenn ku ne day joxe ñaar téeméer bu boobaa ñu am ñaari milliards mais est-ce que loolu ñun ñi fi toog ñëpp mën nañ ko quantifier mën nañ wax ne ndax am nañ ko walla amuñ ko man damay wax ne non mënuñ koo quantifier parce que sëñ euh, Abdoulaye Sylla tur bu ma tur boobu wut la du tur bu existé tur boobu wut la ndax Gajaga laa sant Sylla di sama kal maanaam sëñ Ablaye silla mi nga xam ne ma nga itali supposons ñu jox ko ay carte de membre jox ko ay cotisation buñ ko ko joxee la mu récupérer ci xaalis dana ko xam waaye yenn saa yi du xam ñaata membre la yenn saa yi du ko xam léegi nag man mi nga xam ne maa nekk fii ci Touba ci kanam ku mel ne sëñ Xaadim Diouf ma dikk ne ko damaa bëggoon nga wax ma Italie ñaata membre dafa nekk du ko wax dana ma xamal rek ne ma Italie joxe nañ nangam ci xaalis mais noonu muy dale itali dale ko France dale ko Guinée Bissau dale ko faneen ak faneen noonu lay dale Sénégal gii ñu nekk kon lan mooy solution bi ndax sëñ Xaadim wax na ko léegi sëñ Xaadim daf ne war na ñëw sécuriser membre yi ba xam ñaata membre la ñuy am loolu nag mu mel ne waa commission des finances jóg nañ ci ci benn pàcc dama dul dégg fenn fu ñu ko waxee léegi nii laa koy xool application bi mi ngi nii ci sama mu ngoog sang boobu ma jàkkaarloo mi ngi ma koy woon léegi laa koy xool nii mi ngi sama sama sama téléphone benn application boo xam ne dama ci ci ci ci ah, Play Store wala nga dem ci app ah, ah, app app store boo ci eggee bindal Touba ca kanam ni koy bindee application bi génn nga enregistré sa bopp boo enregistré sa bopp bu la neexee nga jënd ci carte membre buy ànd ak photo boo xam da ngay photo sa bopp ñoom sëñ Xaadim Diouf ñii fi ñu toog nañ ci jot dañ xam ne kon membre sàngam mi ngi Italie jënd na carte de membre am fay na ko cotiser na ko lan la ko fayee loolu mooy problème bi lan la ko fayee ñu ne Orange Money amul itali nangu naa lan la ko fayee ñu ne e-money amul itali nangu naa lan la ko fayee ñu ne free amul Italie nangu naa waaye lan la ko fayee ñu ne visa wala master visa wala master c'est international fépp la am kon loolu mën nañ ko caa fay buñ ko ca fayee ñu jot ci mais mën nañ ci cotiser cotisation bi aussi day dikk ñu xam ko bu boobaa léegi da ngay mën a xam ki nga xam ne moom moo doon def loolu loolu mooy benn xam naa sëñ Mbay daf maa bëgg xamal ne moom ma wàññi li may kii mais li may wax li may wax dafa ma ñor de telle sorte que muy muy pour pour ma wax ne war nañoo mën a soppi ci li nga xam ne li la sëñ Xaadim doon wax ñaareel bi ci des nga xam ne ci laay ñëw te sëñ Xaadim wax ci léegi muy moyen de communication yi moyen de communication sëñ Xaadim wax na dëgg Skype amoon na ñun ñëpp dañ ci daan communiquer suñuy njaboot bi ñu nekkee bitim réew mais amatul waa am na ba léegi am na ba léegi mi ngi am mais maanaam whatsapp daaneel na ko waaw mais am na leneen lu bees lu am google meet mi ngi fi te boobu moo gën a moo gën a neex moo gën a neex fuuf li ñuy wax whatsapp parce que téeméeri membre mën nañ faa tase en temps réel kii nekk Italie kële nekk Espagne kii nekk Sénégal ñu ne nañ am réunion tey suñu amee réunion ñun ñëpp ay wax dëggante sëñ Xaadim nee na war nañoo mën a dem ba am rajo man de en président commission logistique je dis que ne maa ngeeg matériel u rajo wu Touba ci kanam lan moo des fu nu koy def nu nu koy defee ñan ñoo koy yor loolu nag maa ngi koy bàyyee sëñ Mbay Ten waa communication ñu waxtaan ci mais loolu moom sëñ Xaadim matériel bi mi ngi fi rajo Touba ci kanam matériel bi mi ngi fi ndax ab rajo la boo xam ne dañ koo jox Touba ci kanam addiya lépp a ngi fi li ci des rek mooy installé jublu ci léegi bu ñu jotee ndigal waa communication yaa xayti nañ ci jublu maa ngi baalu àq di baal àq di ziyaar di wax rek nag na njuumte lu am maamun la de mais lu ci baax suñu borom subhaanahu wa taala la mu mel ni tamit dégg naa ci kàddu sëñ Xaadim mu wax naka la ñuy def ni ma ko déggee ba nga xam ne carte membre wi dañ koy valoriser waaw loolu waa diaspora bi jàpp na nekkoon kon loolu lay tax mu am valeur dëgg-dëgg ba kenn ku ko yor doo ko bàyyi fu la neex dañuy fexe ba mu am liaison ak li nga xam ne mooy poste de santé yi nga xam ne nii moom la Touba kanam di am en tout cas boobu boo ko kiiyee am na lum lay jariñ ci biir loolu loolu defe naa buñ ko defee dana am valeur woo xam ni doomu aadama yi ñëpp danañ ci bàyyi xel. Euh, bokk na ci li nga xam ni doon na loo xam ni mooy sécuriser li nga xam ni amagun nañ ko ba pare waaw li am la nooy ko jox loolu mooy mat a xam ba noppi ndax bu fekkee ne li fi di ay mbooloo bari na waaye nin ci wóoloo Touba ca kanam wóoloo wuñ ci kaneen kon loolu daa jara xam lan la ba pare suñ ko xamee mooy tax ñu mën a xam fi ñu jëm en tout cas li am solo mooy eh, am na ñun fi jiitu woon di def am na ñun bokkal jamono jii ñuy def waaye li nga xam ne moo mën a téye li nga xam ni mooy kóolu taange gi mooy lu ñu def mu baax ba duñ ci si waaye daaw ko fi defoon ren mi ngi nii nan moytu loolu loolu bokk na ci li nga xam ni dana sécuriser mbir mi kon loolu tamit doonoon na ci loo xam ne ni ab yóbbante la dana ñëw ci li nga xam ne ni mooy système bancaire bi ah, lëkkaloo na lu bari ci biir kàddu yi sëñ Xaadim dikkaan ne ci que bu whatsapp xewi woon moo tax ñu ne ñun gis nañ ne jaadu na eh, ñu liggéey ci système bancaire cest sëriñ mbayteen mii nga xam ne dafay fayu saleer fin de mois lañ koy fay ñu fexe ba nga xam ni moom day dem ci bànkam ne leen bu weer wi dee mbaa bu at mii jee na ngeen ma génne lii dugaloon ma ko ca compte gee mais loolu na en avance day fekk ne Touba ci kanam ci boppam am na kayitu juddu woo xam ne nii ci lay mën a sukkandiku am compte comme ni nga xam ni suñ mbokk yi nekk États-Unis noonu lañ ko doon revendiquer te ñu ni ñu laajoon ko fi ay ati at te ñu bari ànd di ko laaj te muy lu jaadu lu yellu dafa mel ni loolu duma ci sori sax ndax ñépp wax na li nga xam ni réew yu mag yi noonu la ñuy doxe ci système bancaire ak ni nga xam ni noonu la ñu mën a saytoo xaalis fu muy jaar bokkoon na ci tamit euh, li nga xam ni waxtaane woon nañ ko xëy na loolu buñ ko seetee ñu ngi ciy sant waa Touba ca kanam ndax def nañ ci lu am solo muy daara yi daara yi taxawu na leen defoon nañ leen ay formation yoo xam ni ñu ngi ko defal sëriñ daara yi loolu lu am solo waaye ñu ne comme que ñu ngi tabax benn université bu amee solo nii te nit ñi nga xam ne nii ñoo jaar ci daara yi buñ ca mokkalee alxuraan ba noppi téewul mën na noo intégrer système boobu mais ak réalité dëkk bi ni mu demee am na ci ñoo xam ne ci Euh, sur le plan administratif mbaa euh, état civil ay documents amu ko ñu ne lool nañ ci def ay anticipation ba nga xam ne xale yi nga xam ni da ay tuut tànk lan te war a toll ci def mutation jóge ci kii bi dugg ci kii bi ñu fexe tamit ba ñooñu seeni këyit ci état civil ñu mën ko établir ba nga xam ne buñ fay dem duñ am problème boo xam day nekk ay ay lenteur ba ay blocage ci personne bii kii man ko kii du ko man dëkk bi dafa développé waaye day dañoo bëgg mu dem waaye dañoo war a yóbbaale doomu aadama yi ndax doomu aadama yi ci boppam lii jóge ni ci seeni poos moom moo mën a suqali dëkk bi su boobaa kon nag da doon baax ñu am benn banque boo xam ne Touba kanam moo ko moom ah man di ca defee la nga xam ne nii ci lay mën a jàppalee nit ñooñu ci seen problème mu liggéey loolu tamit bokkoon na ci euh, li nga xam ni euh, mooy euh, set domaines yi nga xam ni Touba ca kanam ci tegoon na ko ñu koy soññ tamit loolu mu dox ay jéego jëm ci. dafa am lu solo lu sëñ Xaadim wax moo di ndax Touba ci kanam daa war a yem rek ci ab association walla benn entreprise déedéet daa war a dox jëm ca kanam turam wi ni mu tudd muy Touba ca kanam da ko war a wuyu ndax daa war a nekk SIE ndax daa war a nekk ONC ndax daa war a nekk fondation lu ci nekk mën na koo doon waaye lu ci mën a doon Touba ca kanam na xam ne yaakaar yi taalibi yi nga xam ni aj nañ ko ci lu ma ta bàyyi xel la yàlla yàlla dafa leen cat man day ba léegi maa ngi xalaat ne Touba kanam dese naa ab liggéey bu bari boo xam ne la ci jiitu moo di mbeddi Touba yii ak quartier Touba yii nga xam ne new ga aloom ga ñaari kafteer ñaari pneu tabla bu gàtt jàpp naa ne war naa jeexi Touba ca kanam war nañ koo mën a soppi mbedd yu yii yoy seexul xadiim yi nga xam ne waroon naa mën a tudd tey ji njabootug sëriñ bi ngir lan bu ñu amoon tey ji awul Seex Ahmadu Bamba am solo awul Seex Ahmadu Fadal ak am solo bulwaar Seex Mudu Mustafa ak am solo angal gaynde Fatma ak am solo awul sëñ Daaru Asan Njaay ak am solo lan moo tee ñu am rii Seex Adama Géey loolu waxtu wu nekk maa ngi yaakaar ne Tuubaa ci kanam a doxam war naa mën a dem bàgg ca créer emploi bi ñuy wax man baako xalaate xalaatee deux mille dix ah deux mille dix dix huit bi ñu invité booba yàlla dogal na euh, coordination bi amagul biñ biñ jëndee oto yi nga xam ne mooy oto mbalit yi damaa waxoon ne oto yi man sama xalaat moo doonoon ñu jël oto yi Touba ca kanam yoral ko boppam maa ngi tuub nag ndax booba xamaguma ne dañ ko joxe wala déet dañ maa laajoon xalaat maanaam ma wax sama xalaat benn oto mbalit yi tey juróomi oto yi bu fekkoon ne bañ ñëwee dañoo jël benn oto. wut benn chauffeur war ko fay cent mille wat ñaari ñaari mënee bar war leen fay kenn ku ne cinquante mille kooku ci fay mu nangu ndax na nañ li ñuy fay li ñuy fay chauffeur particulier juróomi war nañoo mën a am kon fukki employé yi ak juróom tàmbali gàngoog su ko defee juróomi oto yi bu ñu ñu ne altine ah Touba Ocass Daaru Xuddoos Daarul Minan Guy Mbind ah, Sura altine ju nekk nañu génne seen i mbalit altine jooju ñu génne seen i mbalit oto yee jaar fa jël ko. ñu ne talaata ndindi tindoodi daaru tansil euh, madiyaana saam nañ génne seen i mbali talaata ñu génne seen i mbali talaata àllarba ñu noppalu alxamis ñu liggéeyi ajjuma ñu liggéeyi loolu bu amoon Tuubaa day xëy set wecc kon maanaam waroon ñu mën a créer emploi noonu laa ko xalaatee woon bi ma xalaatee juróomi oto yi kenn ku nekk maanaam ñaar benn chauffeur ak ñaari apprenti mu jox ma fukki nit ak juróom nga fay leen kenn ku nekk di nga maam ah, ah, ah, oto bu nekk deux cent mille ñaata la un million un million Touba Ca Kanam attan na ko mën na ko fay par weer allah bu fekkee cat ca te ñu ngi cat kon créer emploi moom lu mën a am la idée yaa ngi fi xalaat yaa ngi fi te kilifa yu baax yii liñ bëgg moo di ëllëg buñ dajeeg seen maam ju baax ja duñ rus te wallahi lasim ñii nga xam ne ñu jiite Touba Ca Kanam ànd ak noonu di dox naanu yoon waa ñu nii nu jaar ci wallahi lasim yomal xiyaam mu ngi dajeeg Seexul Xadim da ngeen siggi da ngeen kat wajal harimana hariman amina ja seexul xadim waxoon ak wa maskani salim min fujaari wa mun hala ali bi maa jaari ji nga xam ne waxoon na ko seex abdul ahad fàttali woon ko bi ma gisee ren jii ci kanam jënd ay pompe ngir travaux yi nga xam ne ñoo paan sama rek dem kon mbirum ñaan suñ Touba ga day nangu bu wér kenn amu ci looy werante waaye dañoo bëgg nag mun nangoo ci Touba ci kanam sëriñ Habib mi ngi wax ci turu Allah sëñ tàkku di sant mboolem waa Touba ci kanam cant dañ koy tàmbalee ci moom Cheikh Mamadou Mountakha mi fi nekkal sëriñ bi di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ak ku am ak yéeg la ci Touba ci kanam ku am ak jàpp la ci Touba ci kanam ku am taxawaay la ci Touba ci di ko di sant bokk yi bokk sëriñ yëpp nag nag sant suñu kilifa yi bu baax a baax sëriñ Tàkku mi ak sëriñ Habib kon nag ñun waa Touba ci kanam gépp amal nañ leen ak cant ak ñaan kon sëñ bi sëriñ Tàkku sëriñ Habib ñu ngi leen sant bu baax ci Touba ñaan yàlla na suñu borom guddal seen fan lool ci barke di jot li cantuk waa Touba Ca Kanam yépp itam ci mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ dénk liggéey bi ci di ko teg ci loxol Abdou Fataay gi ak ñi mu ko àndal ñëpp ñu ay jàmbaar yoo xam ne ñoom waxtu bu nekk ñu ngi ci liggéey sant waa ñi nga xam ne ñoo jiitu commission yi liggéey benn yomb ci benn neexu ci yëpp ànd ki coono ko jafe waaye ñoom ñëpp kenn ku nekk la neex loolu naqal takk nga ko boole ko jënd ko bànneex ngir Sëñ Tuubaa kon ñoom ñëpp amee nañ leenu cant ñu ngi leen sant bu baax a baax di sant yi nag waa diaspora bi nga xam ne gannaaw yàlla bis bii ci ñoom la sababoo ndax bi ñu ko njëkkee def defee ko suñ mut sekk nañ ko waxee déwén sa ñu defee ko suñ son bu sekk daaw yàlla dogal na xëy na defees na ko waaye am ndajem ngoon rek lañ ko defoon ren ji nag ñu gis ne lu mat a fonk la lu mat a yaatal la tax ñu jàpp ko defe ko fii waaye nag ñu leen ci sant bu baax a baax ñoom waa diaspora bépp loolu danaa ko wax ci tur coordination bi nga xam ne gannaaw bu ñu leen tànnee fukki nit ak ñett ba noppi dañu maa def may seen jëwiñ ci liggéey bi waaye nag noonu yi laa mën a seeree diaspora bépp ci ne ñoom ñëpp day am nañ itte am nañ pësséef am nañ yéene ci liggéey bi sëriñ Habibou yow mi nga xam ne nu def jëwiñ ci liggéey bi ñu ngi lay seereel lool di la xamal ni day ñii de ay borom pësséef lañ ay borom itte lañ ñu gëm sëñ Tuubaa lañ ñu bëgg sëñ Tuubaa lañ ñu nangoo sonnal sëñ Tuubaa lañ seen man-man seen it seen xel seen xalaat lépp jox nañ ko sëñ Tuubaa kon loolu ñu ngi leen koy seeral di la xamal ne daal diaspora bi mu wax dëgg yàlla jàmbaar lañu lool bis bii itam ëppoon naa bañ a def ndax li fi daje ci aw nit ñoo xam ne dañu daan déggante mosuñoo gisante te gisante tey loolu rek jaawan na def bis bi ndax man bari na ñoo xam ne tey laa leen mës a gis te bis seen ma leen di dégg ngeen di jox leen te fekk na jëmm yi duñ gisee mukk kon loolu rek jaawoon na ñu daje fii gisee kon loolu rek lu am solo la loolu itam la ñuy sant waa Touba ci kanam gi nekk ci Sénégal gépp itam ndax ñu ko defee bisu Touba ci kanam lañ ko def donte ci espoir bi tamul waaye waa Touba ci kanam gépp it xam nañ ne seen bisa ñoom ñëpp maase nañ ci jàppe ko seen bis ñëw wuy si wuy si lu di sant nag baax a baax soxna yi di leen nuyu di fab nuyoo bi seenu nuyoo ak seenu cant di ko teg ci loxo seen jëwiñ di suñu kilifa soxna Bintu Mbàkke moom sëriñ Habibu nga xam ne ñëpp xam nañ ab taxawaayam ak pësséefam ak itteem ju kawee ci Touba ci kanam yaakaar naa ñëpp mën nañoo waat ne soxna Bintu kenn ko ko mën ci Touba ci kanam amu ci ni ñu koy waxee jigéen ju mën góor la waaye nag soxna yi ci ginnaawam yëpp yi noonu lañu leen di sant ndax ñoom it ay jàmbaar lañ ñoom ñëpp nangu nañoo topp ci ginnaawam ànd ak moom def ko kilifa ba noppi doxin bi muy dox mu jub ci ñoom ñoom ñëpp ñu àttan ko way ànd ak moom def ko kilifa kon ñoom ñu ngi leen sant bu baax a baax kon nan gën a yokk su itte gën a yokk suñu farlu gën a yokk suñu jaayante ci suñu diggante ak Sëriñ Tuubaa te xam ne kat ku mu ci nun li ngay sa teraa ngay àddina ak sa teraa ngay allaaxira Sëñ Tuubaa daa waxoon ne day teraa ji ngeen yor àddina jàppe ko ak fay de da ko ko jàppe waaye fayaguma leen ndax man fayaguñ ma ba may faye àddina kërug not la waaye du kërug not yi fay gaa nga ca kanam musuma fayal àddina musuma ko gontal la ma taxoon may liggéey àllaaxira la te buñ ci àggee fa laay fay yoo leen di faye ana li feere yi yow ba jàppe ko ak fay du mu demee ñu ne ko loolu de mbàkk bu ñu xamee jël mu ne loola ngëwamul yàlla li ma taxool mooy def ku ma sopp mu teewal la loolu rekk la waaye pay gëmu ma nga ëllëg kon nag waxoon ne suñu am sutu jaxate ne ko am sutu li matoon a def lépp def naa ko li ngeen mënta ñàkk mu yow mel ni koo xam ne dafa jël euh, dafa soxoon ab dibi maanaam ku jël sa fetal dugg àll bi di wut ab rab di ko rabu àll wax ne mënoo koo ñàkk te fekk na rab am na ku jug ca njël ba way ko ba togg ko ba def ko ci ay ba dab lenn doo nga des si atal seeni loxo mën koo jëfandikoo si leen loxo yi rek bu mën koo jëfandikoo waaye lépp def naa ko ci ay dab taajal leen sëñ am suut ne ko ah, loolu day la ci dagaan daba mu ne ko waaw ne ko ñun de yàlla dañoo bind taq te yow yàlla setal la te ñun de suñ set gi suñ taq gii mënta xajamal sa set gi te sa set gii mën naa suturaal suñu taq gi kon ñi ngi lay ñaan mbàkke sa set googu yi nga xam ne mën naa suturaal suñu taq gi nga suturaalal na ci suñ taq gi bañ mën a jëfandikoo sa dab yi sëñ bi daal di muñ na ko am sot defal nañ leen ko ci kon alhamdulilahi rabbil alamina bi nga xamee ne moom jàpp ndalal nu lépp war yoon wa xamal ne ne lépp lu lu loo xamante ne mat naa wut rek mi ngi ci loxoom ndax bu nu bëggoon dimbali mën na koo yox ba dem te du xam ne mooma waaye dafa nëpp wut daane mooma ñëpp xam ne mooma daane wax ne yaa rekk fi ne man woote loo nañ ma woote naa ñi wuy si wàcc nañ maa ci des woote loo nañ ma woote naa ñi wuy si wut wàcc naa ñoo ci des loolu leer na nañ kon ku yàlla wuy si loo sëriñ bi daana wax ne sant leen ko yàlla te xam ne ñi ñëw ñi ñëw ndax la fa andiwu leen ñi ñàkk ñëw yeewu fa téewu leen a ñëw seenub cër fi nekkul rek waaye ku fi sab cër na nga jël si ko am na ci mag ñi ko mas ne ko demal wool ma suñ suñ mu bañ njaay sa baay diw ak sa baay diw ba suñ bañ ne di leen woo am ku mu bokkal ku ñu wax suñ ma Lamin Njaay ma suñ bañ ñoo bokk ndey ak baay ne ko foo jëm mu ne ko sëñ bi day ma yónni di wooloo baay diw ak baay mu ne ko ah suñ bi de da leen a bëgg dimbali moo tax mu leen waaye doo dem de daal di ñëw jàpp ci loxo ba ci bi sëñ bi ne ko lu tee ne ko da ngaa demul mu ne ko mët lay mi moo ne ma doo dem mu ne ko mët lay lu tax nga ne ko doo dem mu ne ko ah damaa xam ne bay diw bay diw mi ngay woolu da leen bëgg dimbali waaye yow yaa ko jant yam gis nañ la dañoo lànk ñëwuñu yow yaa ko jant njolloo yéen a yam ku ñëwut daa lànk waaye ñëpp seen nañ la bëgg leen a dimbali rek tax nga bëgg leen a woo moo tax ma ne ko doo dem sëñ bi ne ko bàyyi leen mu dem bàyyi ko mu dem woyu leen ndax damaa xool seen xol ya lu dul baax nekku ca te fu waaye baaxee fu dul fii bu ëllëgee du la amal njëriñ loolu moo tax ma di leen jëlilu kon alhamdulilah bi alamina yàlla defal nañu tawfeex defal nañu ndimbal kon nan xam li am te jàpp ko te xam ne kat la gaa yu baax yépp doon dabu démb di ko wut tey ak ëllëg Sëñ Tuubaa defal nañu ko am na koo xam ne dafa ñëw jébbulu ab tukk loolu woon bu ñu daa ido machina daa ngi ngises póon soo xam ne peñ fu mu mas a dem da koy suul ci jullikaay kooka di seet bawam jamono ba xam kan mooy bawam jamono nee na ku mu ko suul ci sa jullikaay boo ci jullee juróomi fan juróomi boo ci jullee juróomi waxtu mu xam ne yow xamoo doo bawam jamono mu sulli mbuusi jàll def ko ba pénc yi mu déggoon ci Sénégal yëpp ñuy woote mu daj mu daj mu ñëw njeewee ba mu ñëwee laaj ci jàkka ji ñu ko ko ab mu dem ci jàkka ji mel ni kuy nafi la sëñ bi yàlla dafa defal dafa defoon ab barrière digg ci mixraab bi nga xam ne nit ñi duñ agsi mu bunt nga xam ne bu ñëwee mooy ubbil boppam bunt bi bi mu ñëwee gisut fu mu ko mën a suul fi sëñ bi jullee ndax kenn ko da daan dem fa ngay sa këpp sab ja mu suul ko fa mu ñëwee njeewee na mënta àgg fi sëñ bi su jootee mu taxaw ba yàgg mu ne ah bu moo ko fi defee bu xamee dara moom bu moo ko xasee def ci jàkka ji bu ñëwee dana ko xam daal di am fu mu ko def ci jàkka ji ndeke lañ noot tisbaar waaye mu daal moo jiitu jàkk ji daal di ñëw ñu ñu daal di ñëw sàppe ba sëñ bi ne sëñ masaan ne tëll bu ne tëll bunt bi bu nee bisimilah sëñ moo jaxate nootu ko day daal di leqaam la ne tëll bunt bi nag sëñ moo jaxate tàmbali jublu rek sëñ fartasu mu taxaw ne teg sëñ bi daal di koy ko ey xool ko mu ne ko sulli sa lii nga fi suul la ko sulli sëñ bi génnee ko jàkka ji mu daal di koy génne jàkka ji bisimilah ñu daal di leqaam bañ sëlmalee mu ne ñokkee ni sëñ bi ba moom jamono laa doon seet waaye yow sama mbuusu pën gi foo suul naa ko fu ne tàmbalee bëgg a lim sax fam ko suul sëñ bi ne ko mu ne ko fu ne suul naa ko waaye ku ne julli na ci nangami waxtu te xamu yow mii xam mu ne suul naa fi mbas yow mii yaay ba moom jamono jox naa saa bopp bis nekk tey àddina àllaa di ñaanal ñëpp yàlla nañ fi daje déwén kenn bañ a sëñ bi waa nangul nu te defal